CLD bi nag tey bi ñu def nii def ñu permettre ñu préparer gàmmu famille omarienne bi euh, tey nag am nañu comité d'organisation baa ngi fi euh, waa kër famille omar bi nekk fi sëriñ bi jiite ko ànd ak vraiment équipe bu dynamique ak tous les services de l'État qui sont là pour ñu seet naka la ñuy def ba taxaw ci ba jour gàmmu bi problème du am moo tax bi ñu posé problème yëpp muy wàllu sécurité muy wàllu Sénélec muy wàllu santé muy wàllu hygiène muy wàllu vraiment euh, yëpp ku ci nekk jox nañ la kàddu gi wax nga jël nga engagement pour nu wax ne di nga fexe ba li ñu nar a def ñu li ñuy yaakaar ñu am ci lu lu ci ëpp. donc loolu nag bu amee dañ ko rafetlu parce que tamit ay ndaw lañ ñuy sant ñu sant pour ñu ñu toppatoo li nga te ne kilifa gi di njiitu réew mi définir na ko fu kilifa dina nekk di am xew-xew taxaw leen ngeen xam ne ay citoyen lañ. dañu am ak ak ngeen toppatoo ko loolu moo tax tey ñëpp teew bi ñu teewee tamit ku ci nekk wax nga tey li nga xam te mooy sa responsabilité loolu nag noté noté nañ ko li ñu mën a régler sur place dañ ko régler sur place incha allah li nga xamante ne maanaam dañ koy yëggale suñu kilifa yi ci kaw dina lañ ko yëggee incha allah tey ci ngoon bu soobee yàlla bu ko defee yaakaar nañ ni lépp lu ñuy tënk muy soxlaw kër gi vraiment nañ ci taxaw ba jéem be lépp luñ ci yaakaar ñu def ko incha allahu rabbi loolu engagement ba xamante ne bi tey CLD bi jël na ko bi ci tegu donc incha allah dañuy nekk ci moment bu compliqué parce que nawet la nekk déjà am mënuñ prévoir lay ñëw ensuite que béréb ba dafa nekk ci chantier dañuy tabax jumaa ji donc am na ay disposition particulières yu ñu jël mooy lan fexe ba chantier bi nga xam ne moo fa nekk pèlerin yi ci accéder te it retard bi chantier bi am ñu fexe ba du am incidence ak par rapport ak gàmmu gi.